asalaamaaleykum mbokki internet Siweulko TV tey fu ñu nekk mooy Fass Fass suñ ko waxee wax làmb Fass suñ ko waxee wax Ada Fass Fass suñ ko waxee wax Moustapha Gueye Fass suñ ko waxee wax Gris Bordeaux ñu toog kenn si jege ñaareelu euh, Ada Fass njaago nuyu nañ la. delloo siyaar di nuyu waa Fass précisément fi ma dëkk Fass Bentañe maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn mag ndaw xale ñëpp. waaw di sant sama yaay bu baax waaw di julli si Yesu Kirista di ñaan si maman Marie di si popa ngeen bu jëm ni yàlla nañ si yàlla yóbbu ñu dem si si jàmm ñëw si jàmm waaw di woo bépp chrétien bu ne si Sénégal bi ñu lay woo popa ngeen bi nga ñëw waaw surtout sama paroisse paroisse Saint-Joseph de Médina waaw ñu ngi waaj a ngeen bi bu baax a baax baax. mais popa ngeen bi kañ la. popa bi la 17 la. waaw bés bu ñu soxla ñun chrétiens yi ma maam mari du mu wax sax chrétiens yi ndax amaan na musulman chrétien yëpp benn la ñëppay fekkante foofu pay dem ñaan dañuy dem ñaan rek léeg-léeg ñu tamit bu musulman yi ayee Touba ñëppay dem Tiwaawan pay dem. moo tax Njaago Bamba sax day dem. Njaago Bamba day dem. waaw man la mus man la la chrétien des musulmans. chrétien des musulmans. mooy yow loolu dafa fees. waaw Popenguine ngeen bi waa saint ñuy ñu ngi waajal de saint bu ñu nga xam ne ñëw nañ de dëkk bi saint dëkk la de am na yëpp. am na mbaam am na sàngara ak ambiance noonu la demee. Ah, noonu la demee ñu jugee si combat bu mag muy muy Eumeu Sène Sa Thiès mais avant loolu sax sa copain da doon bëri Bou Siteu ñu daan ko. mais bu bu moo rusloo jeunesse bi bu bu dafa rusloo jeunesse bi non bu bett nga ma trop bu gars yi la ma entraîné nga ne doo entraîné cinq cent mille moo la gënal ay entraînement mais bu bàyyi làmb lu yàq nga suñu suñu suñu suñu victoire bu rafet dama la ñaanal fu ne kontaan bu mais yow bu nag maa loo de bu gënal góorgóorlu na nga yokk doole man prix dib nga jooy non da ngay bàyyi làmb pour la ngay bàyyi làmb góorgóorlu nga entraîné wala tam bu fekkee da ngaa bëgg dem France baana baana nga wax ñu tamit jeunesse bi xam fu ñuy positionné ndax suñu ministre dañ koy waaj a nangu de bu yeboo nga pare nag ñu saa caaxaan waruñu wàcce si tànk yi nga liggéey nga bàyyi caaxaan bi bu day caaxaan bu day foo entraîné wul bu entraîné wul làmb ji dafa caaxaan bu moo dóor ko ba pare daanu dem xool fu gën a nooy ci stade bi tëdd fa. non bàyyi la ngay wax waay. barki yàlla yow gisoo buul mu def. buul mu def maa rusloo. moo liwutoo sànni ku mu ne eh mais bu jëlee na paa bi de mais bu bu jéggi saa rek benn ku pare teg benn loxo bi balaa paa di xaj bu prolongé. non bàyyi eh, daa xeex xeex bu métti. bu xeex bi daa am lu fa nekk. moo yow paa boobu noonu yow père père Tafa père Tafa de billaay bu ma duggoon si gàrram mu xam ne waay lu ko benke ñenke ko de mooy yow bu yaa ñu waay non bu dafa ñu bëgg a yàpp <laughs> waa ñun jeunesse bu yaa yow bu jeunesse bi instant bi boo xamee nii yow bu yowoo nga nga bu ma sax jéem a romb boo ma rombee bu no koy def non bu bi laay la père tafaa def naa la ko defaat da koy dóor bu même yow fi nga jël Laurent Liss Laurent Ndiago propagande ñëpp ne bu yaa fi ne ñëpp nangu la sa champion nga dem ci père tafaa bi est-ce que du Dubaay bi moo waaye bu àjjana bu ndaw li dama wax na ko entraîné wul de àjjana bu ndaw la demoon nee na nuages yi ba avion yi mbëkkee si nuages yi. bu dafa kontaan foofu la fàtte problème mu làmb xam ni àdduna fee ne àjjana bu ndaw la da ngay dem rek yaa ma gën a xam dund lu neex. bu ba mu ñëwee andiwul doole ay ensemble la andi ay verre ak affaire boobu boo dugg si avion li lay tegal noonu sa loos bi loolu andi. bu dafa juum de mais gënal góorgóorlu quoi da nga bàyyi jooy. loo koy conseillé loo koy conseillé. waaw dama koy conseillé quoi xam ni champion la. waaw ndax ndax fu mu toog tamit ndeysaan dafa fair play bañ ko daanee ndeysaan nee na maa ngi jégalu ñëpp ndeysaan jooy ndax gor rek ay jooy waaw gor nag biñ ko gañee day jooy mais dafa fair play kontaan naa si moom di ko ñaanal jàmm ndax nu muy taxawoo jeunesse bi man ku bëgg jeunesse bi ma bëgg la billaay wala ba bu ma rombee si ko ñu booy naan ma ay eh, jeunesse bi ay eh, linku jeunesse bi damay kontaan na jeunesse bi ndax mooy mooy mooy njëriñu ëllëg daal waaw comme bu gënal càpp comme ni ko gars gënal japp nga bay link yi bu bu na xamul link yi ñoo tax nga daanu ci lamb te gis dégg na lamb la jàppale nak financièrement mais ya entraîné wul nga top publicité yi bu. dégg na kay Lam jox nako xaaliss bu bari. way bu Elimane Lam jox nako xaaliss bu bari. bu nee na du entraîné bu topu restaurant yi ginaaro ginaar lek nako bu bir bi yëpp ay ginaar la ak ndox yi sedd bu bayal kër yi sedd yi nga entraîné bu moytu sa bobu xala nga re da nga nek na ne ci yoon man xamna li nga mën manam ga xamuñu la quoi way man xamna da nga mëna beure yow ngay jaw na victoire maanaam après ak ciow lamb yi nga top rek ak link yi mais link yi ñoo la xaw tel bu dum la ko nëbb góorgóorlu nga liggéey. waaw ñu si foofu noonu combat ak eh, eh, ñu dugg si Mor Kang Mor Kang Kang tamit don doon bëree daan. waaw Mor kooku doomu réew mi la. Koku nekul doomu ñamax ñamax yoy non de doomu gox bi la. mouru patriote yi la dan de. mouru patriote yi la dan lamb amul affaire de patriote ñu ay patriote lañ comme ñepp waaw mais lamb dafa fiir affaire amul affaire de patriote waaw mo da ko mën humilier ko japp ko dan ko xex xex bi beure beure bi fecc fecc bi dan dan bi kooku lañu wax Mor kangang borom Karamale. mais que tamit du lu far jege Ada face motax nga xey wax. non gis nga gis nga nit da ngay nangul sax morom mor lamb ji da cee liggéey ku xool moor xam di état bu mu andi gisuma benn mbeur bu ko andi dem ci état bi mor andi na doole andi physique ba pare andi andi lepp daal lo xamantene ah lamb dafa war a ñëw man ma contane ci mor waaw. yow kontaan ban fan fan la jëm mor, mor, mor naka boy naka magni ci kaw fele ne manam ñu ñu ay ay luur quoi VIP na ñew jël mor comme kenn bari na xam nga bo limee rek jum te duñu gawal ñun ñu tekk sax mbeur mais mais mais mais mo ñu ko fi wara may sans dafa bari ñu ñu wara wacc ci mort may ko sans na dafa mérite mo dafa liggéey. 12 victoires la am am ben défaite. lolu am kam wax gëjë def ci lamb boy yëpp muñ dégg nañ muñal mo ba mu déggee muñal xolal lamb dafa xamni lamb ji lamb jank la mu ñëm jël ko kon du tafa mbeur yalla may ko sutaag may si ndam ndax mom doomu ndakaaru la quoi te daa mun a mais ñi ne ci kaw quoi di bañ jël ci boy nañu may mor mor bu yexé rek nga xamni ne bërëb boobu yegsi na. borom karamale ko bool bool la dé xamul sax tiaxan bu bàyyi fofu non ñu dugg si Pokola ak Liss Ndiago. Liss Ndiago sa mbokk suñu mbokk comme comme man moom Ndiago Bamba. yow yaay Ndiago si ay Jésus christa waaw Liss ñu ngay encourager bu baaxa baaxa baaxa baax di féliciter Pokola. waaw lamb bu gëna neex ci saison bi bu ma sédano gum lamb bi la. moo tax Aziz Ndiaye nee na leen tamit soo leen bëggee ñu yóbbuwaat ko juin ñu tëggalaat leen. loolu tamit day gën a neex mais Aziz Ndiaye moom dafa dégg de. dégg kay non Aziz Ndiaye moom moom war nañu xoolaat kooku quoi kooku foo gars yi di ko gëstu di seet si lu mu ne ndax lu mu tëgg nii loolu neex na trop waaw ndax lambu xale la woon quoi lambu xale day saf sap dafa war a neex te démb kuu yi taxar naas na te tëf tëf tëf kuu yi dafa neex waaw ba pare gis naa fa bëre waaw gis naa gis naa fa ay bettel nag Emberi ma bett trop si lambu jo nun ndak lan lo lo pas que dama dama kontan dal dama gis lambu man dem dama lambu gis ay boy yu you yu bëgg sen way boy yu bëgg lambu dem gis na len fa ay boy yo xamantene dem démb dañu jaay sen bakkan ndax lambu ji. wa di tamit di wax lambu du violence. dañu moytu violence bi. violence bi naka gaay moytu ko waa ndax ñep ño bokk nday ño bokk bay senegal senegal bop la kenn mënu kaa xar ñaar. mais maanaam quoi boy wootee jàmbaar jàmbaar du si ay jëfin jàmbaar ci xol la. yow waxee nii comme si ngay wax quoi. non Laurent du question Laurent sax mooy wax waxuma si benn Laurent ñëpp laay waxal damay généraliser ndax waa Pikine ak waa Diamaguène ñoo doon xeex. waa xeex yu métti lañ xeex. waa xeex bu métti ci xel comme base mais waa CNG nañu xoolaat lu ñuy def bu ñu jël ñaari mbër ji ba leen jëleen boole même heure heure u génn du yoon. ke pigin la dëkk kee jam nga ni ko pigin mi ngay mujjé wo mu genn ke jam nga té ko convoqué mo am dé ñëw rek duggu ba pigin bu ñëw am duñ fekk kenn ci buntu bi dañuy ñëw rek tam dugg mais nga boole ñaari mbeur même heure buñ tassé mo da fay am ba pare lambu xalé la làmbu tej dof blessé yi tamit bari nañ blessé yi bari na di masaw Laurent dañ ko gaaj gis na ko muy wax lu doy war xéet bëtt nañ bobbi mais moy lolu di ko ñaanal jàmm ak tawféex. waaw ñëwal ñëwal ma si combat boobu noonu parce que combat boobu moo dàq comme bu neex kay. combat bi ñëpp a rafetlu combat bi ñëpp kontaan képp ki amateuru làmb ba nga seetaanee làmb xam nga ne làmb ji tey kuy taxar naas la bëri bi feeñ na. waaw Pokola yàlla may ko ci ndam pour décision waaw liis waaw tamit nag xaw a góore rek. muñ mom tamit ngi savourer victoire am neena neena neena day savourer victoire lolu mën ta ñak dafa am lo xamantene manam nit da ngay da ngay fair play man buñ daane sama mbeur damay damay xam ne ko daan duma ya duma la mëna dégg parce que yow face nga dégg face ak jamm gën mom ñom ñaar mom ci kaw la ci kaw lolu derby la derby la mo ñun eh dañuy rafetal ba mu nice ndax senegal ben ben deret la mais lamb buñu bolé dina xam ne xoolal. làmb kenn lay boole. làmb dinañu boole. ba pare eh ñoom dañuy topp nit ñi di sonal nit ñi naan ñun ak ñoom du ñun ak ñoom. ñu nag seen bërëda boobu noonu la du ma wax turam de seen bërëda boobu na bërëda ban bërëda bërëda boobu noonu ñaan bërëda boobu ñaan yalmin bi sita waajal mburum dëkk bi dégg naa moloo da ko xaw mu daan moloo ga ay jox ko aarafaas jour la ñuy doog a xam aarafaas est-ce que boobaa bu roi des ken kenn da nga fay bay sir da mun dan ken moy yow. Siteu yow Siteu rek da gën la tenir en échec. Siteu daanu fi eh ji. Eh, day daanu jaxase aduna bi ak public bi. di wër ci deug bi nan man jambar la fi ñep ay eh, jambar lañ. waaw kep yu tax de raw de raw. kep yu tax sa ngemb. taxaw rek da de tenir ko en échec jambar la la de guerre daan la de guerre xam nga ñum daan mo daan eh, num tede eh, iya yegene la daan la de guerre daan na ñepp maam la de guerre lamb joju mo fuusa quoi ah. mo mo beure beure tokar ci lamb joju quoi ah. mëno ëpp doole beure bi fuuf dak jiko ba muy daw ci saaku yi yow ko da melne gëj nga gis ci de way sita la la wax manam yag yag dox dajé manam ñu lakato duñu ci dara manam dañ daan wax duñu bañ tour tour dañuy tour tour sita na wajal mok ada fas Jal Diop Sangomar ku maamam dagalul terrain biir Ndakaaru doo tabax immeuble. Ah. boo bay jàpp sa temps naan sa tampiko. kooku moomin la dafa ës. Ada Fass le retour de Ada Fass nag. mais retour de Ada Fass foofu laa bëggoon a ñëwee sax moy Ada Fass am combat ak Gouye Gui ngeen wax si sa si sa si sa doo leen lijjanti combat moom ak Gouye ba pare. parce que suñu bët teguñu ko si guy Gui. Arwa bu jëlee bërëm tegu ci Gouye Gui. ah na teg ngembam bàyyi baay te suñu bëri sur waaye de zéro mi lañ ko teg te dañoo am yoon ku ñu fekk ci yoon bi nag da nga pousse quoi mais ñu jàll sinon bi la fekkee ci yoon mi di nga daj loo musala daj. lu tax suñu waxee Siteu nag seen ji ngeen di jëfandu instant yii xoolal gars yi mënut a ñëw waxati instant yii de dara nu mu demee nii. suñu waxee Siteu de laay laa la waatal nii de làmb ji nii àdduna moo ko bëgg Balla Gaye Modou Lô moo dekkiwaat si làmb Siteu Ada Fass te maanaam Siteu quoi na pare quoi. xam ne bii du yooyu sa jour ko bii du yooyu bii Ada Fass bi la jël job Sangomar moomin bu ës bi Ada Fass ku mu fekk ci yoon bi laa la wax jamono jii nii waaw yàllaay may quoi. instant yii guy gi la fekk si yoon bi. waaw guy na waajal. guy gi na xam ne dem nañ 14 régions daan ko. yéen ak yéen yéen régions. dem nañ Dakar. jóge boobu dem Thiès Mbour Fatick Matam Casamance gis nga Kolda bàyyi ñu benn région si biir dëkk yi Kédougou bàyyi ñu fenn te ay Gambie ay Touba ay Diourbel fépp la ñu dem pour daan sa waay. le retour de Arafas àdduna moo ko moo koy xaar Arafas nar ñëw arène nationale le 7 incha allah yàlla may ñu si ndam bu rëy Arafas ñëwul tuus tuus bi. mais temps yi changé parce que ñaax a gis soirée te dégg naa daa demoon Lyon entraîné lu mu indaale. waaye laf cat rek laf cat. Arafas moom gaan laf cat rek. si lancé bu mu nekk nii yàlla ci yàlla musal ah waaw baa ñu si ba ci kanam kanam comme ni nga ko mu téewee ko noonu maanaam retour la gars yi doon xaar te incha allah wa rasul comme ni ma ko waxee woon waxoon naa leen ko dinaa leen ko waxaat quatorze régions yi la ñu dem pour daan guy gi xam nga làmb ji daf ñoo ñor ay Thiès lañ dem Dakar Thiès. foofu daal laa xatut dëkk ndox la nekk dégg naa. mooy jamono ji non foofu link la nañ def tekk rek tekk woon ñu yoon. mais bu ñu rambax dañuy dégg té manam bu bëre yoy nonu ay guuy gi dañu dem liggéey ñi laqadu di nek ci salle yi di yëkkati ay ay 300 kg ñi ñii ñaata ngeen yëkkati. arfas bu boo ko bâtiment njugo immeuble njugo kébé mu buddi ko té ko né xalé la dafa am doolé fo laal ci yaram bi mew moy genn ko doomu Fass dé doomu fa lu yomb arrangé wuñu ñu. ñun lu yomb moñu arrangé wuñu parce que ñun ay doomu Fass dañ manam guuy gi lu gatalen lay wax. entraînel nga bàyyi caaxaan bi. guy gëj nañ kaa gis mu ngi entraîné entraînement bu métti. làqatu ma wax leen ko chaque jour ngeen ngeen gaa génne vidéo guy gi boo xamante ne 2017 la xaw ma 2011. gaa naan gaa naan ay daa ci formu sax ma ne newul ci forme loolu du forme fromage la buy taxaw si naaj bi di ruy. ay seey jeex tàq. mais combat boobu noonu da ngeen xeex wala da ngeen di bëree comme que guy gi moom jàpp la xam. maanaam yanu daan guy gi. bu taxawé deugal boppam arafas dor ko dori metti ma la ko wax fi tay guuy bu taxal deugal boppam arafas dor ko dori yi média moom a de bu taxawé deugal boppam arafas Fass. xamé wuñ ko ay xex beure nañ ko. ay mbot dañuy ra quoi. lamb jeen lamb jii nii dañuy tej jeexal dañuy ñew andi bagar lamb taaxay day fess del sa bu xexé dina ko dor repp mu wacc bu beure nag waxuma la ak beure bi beure mom suñu nos dañ ci anniversaire ñun beure ñoo ci mën aller ak retour saa jàmbaar la de. jàmbaar te dafa dem xoolal andi doole. te dafa ñëw pour yegalee ko fii kontak waase si tànk yi bu jàppee bërëb bii da ngeen xam ne ñaxe ne kii du nit. Arba extraterrestre la. borom lobi bi. yow da nga dof gars ñu xaar rek ñoo ngi ñëw de la set yaa ko mais démb ñu euh, démb ñu génn si combat bu mag muy euh, Sa Thiès Eumeu sen combat bi mën nga ma see ñëwal wax combat bu neex combat bu neex combat génération waaw combat bu neex gis naa fa tamit bëre ama seen koo xool xam ni nekk na deux fois champion d'Afrique mën a bëre. gars yi xamee wuñ a bëre. umpule ko Sa Thiès dafa umpule mais daa fair play ma dégg gars di di critiquer Sa Thiès dama damay suivre làmb may gis gars yi di critiquer Sa dafa juum ah, ay ay ay waruñu ko taxawloo mais wax dëgg la Sa dem na fi deux fois ñu ne dafa ëppal bëri ëppal lay bëre ah démb mu ñëw taxaw daanu ëppal na dem song ñu daan ko mu taxaw ñu daan ko te bokk na ci mbëri gën néew la defer ci làmb te gars yi dañ koy yëpp mais maanaam quoi lam moo demee nii yàgg na daan ay doomi jàmm tey mu ñëw ñu daan ko waaw kon dañ cay. en nit ñi di wax naan ay eh, Balla Gaye moo ko sacrifié. Balla Gaye na sacrifié raxam. moo ma jaaxal Balla ma jaaxal. Balla Gaye na jël roi des arènes bëgg raxam jël roi des arènes nga ne muy sacrifié raxam loolu amul ci làmb. gaa yi tamit séeram tamit génn na ne ci mu ñu fa nekkoon tamit daa désordonné tout ça naqaruloo ko. defet moo mel noonu. amul bépp mbeur bi bëri ñu daan la no nice gis na ay ñaar la ci gis ñet muy albuuri lañ fi daan mu fair play and ak zago Bale tous baaxub def lu rafet image yoy non dafa daw sama yaram mais manam quoi biñ nit nit mbeur yi dañoo tam buñ leen daanee rek ki moma jaay ah sama li mo baaxul te ñoo ñoo ñeneen ñoo la jaay yag nañ ñoo ngay daan tay nga ñak rek bëgg da ngay gëm yalla ñu ñoo gëm yalla ñaan ñuko yalla yalla mo mom ndam ñaari ndam moy dem ben moy ñibi kon manam nañu waw fair play quoi bi la daanee nga xamni yalla ñew yalla mo moo loon may li dara mom lek mo la xagn quoi face à face face à face euh, face à face Balla gay ak Tapha gay yëpp moy def euh, euh, vidéo moy def viral instant ni Tapha tabatin de billahi wallahi wa taala gis nga ko ni mu toll tabatin melni immeuble building surok xam nga surok immeuble surok yu ngando yoy nek fi ni poe tabatin mo nek non tabatin fo Tine fooluwul xamul sax kuy fo waa avance bi dañ koy wat fan si fan si balagay Gaye nee na avance bi day de ah. day asa day day texel non rek gi jema a di jéem a teg xel naan ay stress lay dindi leer nga leer ni Tapha Tine stress boobu la ngay wax Tapha Tine mooy neex dama lay coob laa. man ma tiit pour man saa yore ko bëggoon non Balla Gaye bu muusee dëgg na jël avance bi delloo ko sa waay dem xooli fu nooyi wala mu ñëw jël aada faas sinon bër day trop tard de la mu ngi dem Tapha Tine mu gën a yokk di dem Tapha Tine gis nga mais gis nga kii Malick Thiandoum ba mu téemélee micro bi Malick Thiandoum da doon da doon capp tànk yi pour jot jëminu Tapha Tapha Tapha Tine bi non na ma billaahi mais lamb bu neex la quoi ndax Balla moom ku taxaw si àdduna ku xam bala xamni balal ragalul kooku lay moy le lion de way càmbaar tigi la waw lam bañu ci dara day rak day xex daray song mboo ko ne rey sa day dem songu kooku loolu yàlla moo ko def waaw jàmbaarte boobu ma ko nangul mais lamb je ni waw que le meilleur gagne quoi ñu genn fofu nonu Franc Franc ak Serigne Ndiaye de di tëkkante si lamb ji tëkkante bu metti parce que ñom ñaar xamante nañ moro ma ne la ñaari ñu miinante yag laale bu ñu tasee day neexaat rek parce que dañoo laale laale waat laale waat te boo xoolee Serigne Ndiaye moo ko njëkk a jox defet arène waaw moo tax instant foo mu jël revanche am. mais Serigne Ndiaye moo daan tamit Franc euh, euh, Mbapat. waaw Mbapat ak arène bokkul c'est diamétralement opposé sama diamétralement opposé voilà kon nag kon nañ ci baaxel xel bu kekk la de Serigne Ndiaye kenn ku kenn dogaalee ko moro laam boobu day neex. yàkkamti naa promoteur bi ku ci mel ni yaaram aar tëgg làmbu jooju làmbu làmbu làmbu xale la day taxarnaas kuy day day neex de ñaari dof ñooy bëree njaago bi wérul de mais bii tamit bu kekk bi la de ak dëgër kong la def billaay wallaay lu leer nañ waaw ke super super super franki yaa ngi mu def bombardier balaa arbitre di di ñëw sax kal na tànk bi ne ko mel ni mbano bu tuuru billaay rey na ma foofu ma bàyyi la nga nuyo nga nga tagoto nuyo sa gome Ada eh, Ada nyom aba Abakara wow waaw man lima am sama aduna lawa wax Fass mom ko gënal man Fass lay représenté man doomu fast pur et dur la man mom ma si boy lai toog si boy ini nak boy la fondol la magondol la judondol ma juddoondool maa bege bu baakha baakha baax te dama message may lancer quoi promoteur yi nañ jàppale influenceur yi di and ak mbeuri parce que tamit influenceur yo sonu quoi sa lamb amé amee ñun ñoo jaay waaw ñoy ne ci média yi waaw di wax di def lepp waaw nañu gëssu tamit quoi tamit même buñu mënu mënul sa sax nañ waaw nañ am fuñu fuñu duggal quoi taxaw ñu waaw di nuyu ñëpp nak di naan face yalla nako yalla may ndam képp ki mbeuru face am combat ku ci melni ni yalla nako yalla may ndam ñu amagul combat yalla may leen combat waaw après nak sulay sulay aar Fass numéro 2 borom wagam koku doomu Fass de yal na la yàlla may ndam xam naa ne bërëb yaa xamun foofu boo jàppee mu tas. la demee waaw. Ada Fass bu rëbës. am na combat tamit. ñu ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax yal na ko yàlla may ndam waaw. pison yow. waaw xalaat bëri la yow ñoo nag yàlla min bi la de. yow da ngaa essayé ci benn prison bi laaj benn prison da ngaa te benn prison bu ñëwee da ngeen di peeroo dañuy peeroo mu neex. dañuy peeroo di peeroo dafa xew. noonu la demee ah dof la dal wala yow. loolu la aada mooy pokalaa pokalaa.